photo bu rafet bu mel ni bu maam Serigne saal bëri wala bu dee Baye Sall mu ne ko may ma ñaareel <laughs> bu dee keneen mu ne ko may ma nangam waaye yàlla daa xam li gën ci ñun moo tax mu mu tànnal ñu ko te mooy lan ihdina siraatal kon hidaaya bi nga xam ni moom la yàlla garanti ne bu ñu ko amee tekki moom la yàlla tànnal ñu fatiha te yonent bi yàlla moo ne wa in tutiuhu tahtadu maa ngi indi ci grandeur hidaaya ci boppam bu demee ci alquran du ko yàllay tàmbali dafa wax ne alif laam miim dalika alkitaabu laa ba am ñu jàng laa rayba def ko taxawaay muy riwaaya ci riwaayat was am ñu ne laa rayba fii ñaar yëpp benn maanaan hudan lil muttaqin gis nga xoolal lu mu njëkk a wax hudan laa rayba fii lu mu ca hudan kon ndakate option wu alquran mooy hidaaya la ci nit ñi léegi nag mel nañ ne ko waaw aw man humul muttaqun ñi ragal yàlla ñi nga xam ne ñoom ñoo am hudan ñan la mu ni alladina yuminuuna bil xaybi jëlal benn critère bokk na ci critère ku ragal yàlla dafay gëm kumpa ajjana am na waaw fan la nekk ci kaw lay suuf waaw nu mu demee li ci yàlla net li nga nett lépp la ca des nga ni ah lii day bàyyi naa ko ci sama kumpa yi suñu borom nee na loolu bokk na ci critère lu jullit dangay ngay faatu waaw kañ nga koy def fan nga koy defee yàlla nëbb na la bokk na ci kumpa bi war a gëm kon ab jullit dafay gëm kumpa alladina yuminuna bil jàppal benn critère wa yuqimuuna dañuy taxawal julli kon ab jullit dafay taxawal xam nga ñaata critère wa mimma razaqnaahum yunfi li ma leen jox man suñu borom ci alal dinañ ko dépensé waat ci yoon yàlla lenn ci li ñu ma leen jox ñaata ngoog trois walladina yuminuuna bi maa undil ilayka ak ñi nga xam ne dañoo gëm li ñu wàcce ci Seydina Muhammad waaye yëm yëmuñu ca wa maa undila min qablik ak li ñu wàcce woon ci yeneen yeneen yi la jiitu woon ab jullit non seulement dafay gëm alquran waaye ni mu gën a gëmee alquran noonu lay gëmee tawraat noonu lay gëmee linjiil noonu lay gëmee zabuur noonu lay gëm gëmee mboolem téere bu ma yàlla ma sa wàcc waaye nag ngëm gi ni ko gëmee du bokk ni mu gëmee gëm gi mooy da koy day gëm ni ci yàlla la bàyyee ko mais appli maanaam application bi day xam ni dafa excusement dafa dafa dafa primé dañ ko folli parce que alxuraan dafa ñëw indaale mboolem la ca nekkoon réacta réactualiser ko kon dañuy appliquer alxuraan appliquer loolu ñëpp mais application bi dafa primé ci yeneen yi ci des alxuraan nag dañ koy gëm mais dañuy gëm ni dañ ko war a appliquer noonu la koy gëmee. waa maa unzila min qablika lu mu ca teg wa bil aaxirati hum yuuqinuun dañuy gëm bi su penc xam nga critères yi la wax lu mu ca teg ulaayika ala hudan wala déet wa in tutiuhu tahtadu ndax nu la neex gëme yàlla ndax nu la neex gëme kumpa yonent bi moo lay tracel lii mooy kumpa lii du ko lii lañ war a gëm lii lañu war a saytu kon yàlla yenenti bi la ñu royloo ngir mboolem critères yi mu tudd ñu roy ko moom nam ko daan defe ak nam ko daan jàngalee waa in tutiuhu tahtadu kooku nag nga xam ne moom lañu war a roy moom rek lañu am droit roy ko bu ñu ko royee mu ñu am certitude ni ñi dinañ dem àjjana moom ngeen ñu doon joobeel bi ñu wax ni nii la mel lii mooy jikkoom daa njooloon daa gàttoon daa tabe woon daa daa daa daa daa kon li ngeen doon def nii lu ko gën a rëy ci àdduna bi man gisuma ko ndax ma defa nabi yàllaahi aska taabudi dégg nga ma dégg dégg naa léegi am ko ni euh, fa ma duxu xaw ka aw nu mu tëddi mu ni fa madaxu rasulullahi tagg njol màkka bokk na ci farata yi gën a feddali boo gisee introduction bi ma ko defal rek day dégg danga ciy déggee mooy ni fa madaxu rasulullahi awkadu min min awkadu min awkadil fardi fa madaxu rasulillahi min awkadil fardi Mor Njaay nee na taggu njol màkka te mooy tracé ay yoonam fàttali ay jikkoom joxe am njàngaleem leeralal ko nit ñi nga xam ne ku ko topp di nga dem àjjana ku ko moy di nga dem safara nee na tagg ko mel noonu fa madaxu rasulullahi min awkadil fardi doy la qawla fi yawmin bi daarati juljuli Mor Ndiaye nee na lu dul tagg njol màkk bàyyi ko la jaahi ola udaba ul jaahi daan def daan daje te daarati juljul ku nekk di tagg la nga bëgg ibnul qays di tagg la mu bëgg keneen di tagg la mu bëgg nee na tagg mbóosóor yëpp bàyyi ko nan ngay def dañil qawla fi yawmin bi daarati juljuli mu ni dañil qawla fi yawmin bi daarati juljuli daaratu juljul ñi jàng suaraawul jaahili yëpp xam nañ ko mooy fa jaahile yi daan daje di tagg seen la ñu bëgg ñi naan gileem ñi naan nangam ñi naan nangam nee na daxil qawla fii yawmin bi daarati juljuli man matqana bi yàllaay min awkadil fardi li nga koy remplacer mooy ñëwal nga tagg sidna Muhammad mi nga xam ne yàlla garanti na ni wa in tutiuhu tahtadu moo tax sabawta ila dunia wa zullu bi la yasbu moor سبوت إلى الدنيا وزول بلا يصبح سبوت إلى الدنيا وذل بلا يصبو وقرك من هذا المباطن وقرب وقرك منها باطن أصل مباطنها حرب nooy def nabi fasarha mu ni fadarha wa sharriq la yuqirru bika al-gharbu bi yasriba nuurun li nubuwwati laa yaxbu tasaaraka fii idrakihi tarfu alqalbu borom Ibnu Muhit nee na yow nit ki nga xam ni yaawan ginnaaw rasulullahi addunaa ki poñax itam fees say gët ba nga wan sidna Muhammad ginnaaw nee na nee na la sabawta ila dunia yow day yaa jëng dem ci àdduna wazul bi laa yasbu te ko am xel du jëng wa garraka minha war na la ci àdduna lan asilmu jàmm joo xam ni baatinuha biiram lépp xar bun ay la xam nga booy fiir te bëgg a jàpp dangay ngay taaral biti bi bala nga bëgg a jàpp bu ñëwee dana xeemeem fii dama dana xeemeem foo fiir nga toll waaye bu dugalee baatam rek xam ni fii jàmm nekk fi li fi nekk mooy awaay àdduna yitam bu la bëggee wor dangay wan ay taaram wala bâtiment yi rafet yi wala njongoma yi rafet yi wala alal ju bari ji wala bànneex bi ba bu fekkee ku gàtt xel na ngay jàpp ni lii mooy lii mooy ak texe nga dem ca yàlla tàqalee laak yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo dee dugg safara moo tax mu ne wa gharraka min hasal mubatina xarbu adduna daal li la ci war mooy jàmm joo xam ne boo demee ba ci biir ay ay ay rañ ngay fekk ci biir yow si yow yow yow nit ki kon nan ngay def mu ni fa darha bàyyil adduna wa charriq te nga jublu penku charriq nag fii dafay dafay dafa am ñaari maana xam nga charq mooy bi ñuy tudde fi ñuy tudde est maanaam wàll wi tudde wi féete penk nga xam ni li ngeen di jàng yéen xale naan les quatre points cardinaux l'est l'ouest le nord et le bu nee charrek li mu ci jublu mooy jublul penku maanaam demal à les loolu mooy maana zahir bi waaye jubluwu ci loolu li mu ci jublu dëgg xam nga téere bi ko doon way mi ngi ki ko doon complété mi ngi nekk mi ngi nekk fii Maroc mi ngi nekk Espagne boo boo localisé da ngay gis ni yenent bi yasrib mi ngi leen féete penku moo tax mu ne was mu wasarre jublul penku lim ci julu mooy xoolal njol màkk xoolal am njàngaleem topp ko te bàyyi la neen lu dul njàngaleem njol màkk kon fa daraha bàyyil àdduna wasarre penkul laa yu yuqirru bu mu saxloo bi ko alxarbu saw saw itam dafay am ñaari maanaa fii benn maanaa bi mooy maanaa physique maanaa xissi mooy l'ouest côté no côté côté côté sow bi waaye beneen maanaa bi mooy lépp lu wuuteeg njàngalam sidna muhammad kon fa daraha bàyyil àdduna wa sharriq penkul laa yuqirru bi mu saxloo bi ka ci yow mukk alxarbu penku ah, eh, sawu ne ko waaw la solox nga jox penku lan moo tax lan mooy sa problème ba nga bëgg ma bàyyi loolu lépp jubluloo ma penku lan mooy sa problème ba civilisation li muy rëy rëy nga bëgg ma sànni yépp jublu civilisation bi nga xam ne làmp ba mi ngay niitoo penku lu waral loolu mu ne ko bi yasri ba nekk na ca yasrib te mooy madinatu nuurun leer goo xam ne laa yax bu dootul fay waaye leer boobu nag ñaar a koy ñaar a koy gis ay gët dana ko gis mi ngi indi aspect économique aspect xam-xam lépp lu bët di gis ñu mën cee sukkandiku ngir defale ko am pénc ba mu rafet boo demee yasrib da nga ko gis mooy tarf bët bi ñuy gis waaye wal xal am na loo xam ni dafay intégré dafay interroger carrément xal xol kon lépp loo xam ne xol dina ko fas mu liy féexal xol liy wéral pas-pas boo demee Cees la ca gën a mat da ko fekk foofu moo tax mu ne tashaaraka fi idrakihi tarfu wal qalbu mu ne ci leer googu bihi matun borom ibnu mbay nee na bihi ci leer googu fastanir leerlu ci in tantahit saa yu buuroo bi ko ceew himmatun yitte ak wala tantaxit min dunihi laka azmatun yitte bu la mën a dal lu mu rëy rëy ndax danga ngaa banque xoolal njàngalem njool makka jàngu ko ni mu jàngalee système économique bu baax da am li nga xam ne mbëgg nga ko ci wàllu ci wàllu économie ndax da ngaa ñàkk xam-xam xoolal njàngalem njool makka mu teg la ci orientation boo xam la gën a rëy ci xam-xam dina la ko jox ndax da bëgg jàmm xoolal njool màkka la gën a rëy ci jàmm dana la ko jox xoolal njool màkka lépp loo bëgg solution ci àdduna boo xoolee di gis di gis ni dina fajal sa sa yitte kullu diyaa dunahu fa huwa te liñ ci jàppkat lépp luñ la wan naan la leer la lépp luñ la wan naan la xam-xam la lépp luñ la wan di la ko taaralal bu wuuteeg njàngalem njol màkka teel a la xam ne loolu lépp lëndëm la génnal rek moo am mooy ngeen leeru sidna muhammad bada wa biqaawul a zulmu wa zulmatu yontu yàlla muhammad rasulullah bi muy ñëw ci àdduna dafa fekk àdduna bi nekk lépp di tooñ ak lëndëm fa asraqat al arjaau wa nqasha al karbu nee na bada wa biqaawul ardi xam nga biqaa mooy pàkk buqaatun mooy benn pàkk biqaa tamit dafay am ñaari maana dafay maanaa xissi fii ma toog ab pàkk la waaye da ko waaye waaye romb na ko jubluwu ci loolu dong bu nee biqaa man nga caa jublu it comme pàkki àdduna bi ni mu wuute am na foo xam ne dafay téye ndox am foo xam ne du téye ndox am foo xam ne mën nañu koo bay am foo xam ne mënuñu koo bay am foo xam ne géej la noonu mu wuutee diversité boobu ci am mu ni yonent bi sallallahu bi mu ñëwee bërëb yi nga xam ni bërëb yuñ mën a dem la ak euh, gisin yi nga xam ni ay idéwal wala lu mën a doon daa fekk lépp lalu ci ak tooñ lalu ci lëndëm waaye bi mu ñëwee nu mu def fa asraqatil arjaa wan qasha al karbu ñëwee mboolem bërëb boo xam ni ak tooñ ak lëndëm fa nekkoon da koo leeral mboolem bërëb boo xam ni tooñ a fa nekkoon ak lëndëm da koo leeral mboolem gis-gis boo xam ne dafa lompañoon ngir gisin bu rafetul da koo leeral ba mu nekk xam-xam boo xam ne kenn da ko din moo tax bi mu ko defee rek ci la mboolem luy njàqare jóge ci àdduna moo tax mu ni fa asraqat al arja wan qasaa al karbu ala fi li xumrin fi lmuxaali adawtu ala fi li xumrin fi lmuxaali adawtu borom gi du may ngi jooy ألفي لعمر في المقال أدعته ألفي لعمر في المقال أدعته ماني برم إنو مهيب مجي جوي سمعت بي أمر الهوى وأتعته سيد مودو ماني ألفي برم إنو مهيب مجي جوي لفي لعمر في المقال أدعته موني ألفي ونا سمن جقري الذي لعمر في المغالى دعوته لعمر تحالك كنين سمعت به أمر الهوى وأطعته منك واي يوسك دندن نمك سانك neen mu ni damaa dégg aw ay banneex rek ak i mbóosóor ma topp ko fekk booba am na keneen ku fi nekk koo xam ne boo fa nekkee lépp luy bànn danga ko fekk muy Seydina Muhammad ma wan ko ginnaaw moom man man borom illu ma yi. kan ni lam aarif nabiyan waa yow. lan moo la sooboon ci yoonu lëndëm yooyu xanaa daga xamul njol màkk mi nga xamante ne leer yëpp ci moom la centralisé wu moo tax mu ne ka an nii mel ni man lam aarif xamuma nabiyan yonent bi nga xam ne araftuhu xam naa ko tey لقد كل كتاب للنبي ننعته كاني لو أعرف نبيا عرفته xam nga ka la wax dafa def li ñuy tuddee tasbih ka anni ka an nii dafa mel ni man lam aarif xawma woon kon dafa mel ni moom xamoon na ndax bu xamoon bu xamul woon jërul muy def tasbih ka an nii mel ni man lam aarif xamuma nabiyan yonent bi nga xam ne araftahu xam naa ko tey mais nag xam-xam bu njëkk ba xam-xam gu bees gii bi mu xam bi muy doog di xam dafa am différence ndax yonent bi dafa ay dimension yu bare bëree bëri la xëy na moom kim xamoon mooy Muhammad ibn Abdullah xëy na moom ki mu xamoon mooy ki juddoo Màkka génne àdduna madina xëy na ki mu xamoon mooy ki jur Fatima jur Roqaya jur Umu Kulsum jur Abdullahi jur Qasim jox jur ñam juróon xëy na moom kii xamoon mooy borom këru Aysatu xëy na moom ki mu xamoon mooy xaritu Aboubacar xëy na ki mu xamoon mooy xaritu Omar xëy na ki xamoon mooy xaritu Ousmane mais ba léegi taxul mu xam njol màkk dëgg dëgg dëgg dëgg waaye nag bi mu nee bi yàlla muri ay kiiraayam mu janoog njol màkk ak daraja ja mu njokk ak mu ño muy markazuhu al fil wujud gis dëgg dëgg njol mag gëlëm nag xamatul lu mu xam moom mel ni dafa judduwaat judd gu bees te nag al mar'u yuladu tey nit day juddu ñaar yoon day juddu nekk nit ami nopp am lépp waaye ba léegi mi ngi ci obscurité lëndëm waaye bis bi nga xam ne ay kiiraayam ci lay mureeku mu janoog xaqaa xaqaa'iqul kawn janoog xaqaa'iqul muhammadiya janoog njàngalem yàlla ca nam gën a nekke keroog lay dog di xam ne yeewu na te dootul nelaw loolu moo daloon mag ñi nekkoon fii boo gisee sëñ Modou nit a ngi tëdd ci lalam di nelaw talul dara nga gis koo xam ni ñimewuta nelaw ñime wut a génn te téewul kurusam def li mu war a def te pourtant boo leen gisee ci biti da jàpp ni kii moo maanaam ki nga xam ni moo mooy def lu ko neex moo gën a nekk jàmm fekk ñoom ñaar dañoo yemul kii dafa nit la de waaye dafa nekk ci lëndëm kii nag xeppi gi ma xeppi moo tax talatu la xef ay bëtam ndax lim janool ku ko janool xippi mooy mag ñi mag ñi foofu lañ jaaroon moo tax mu ne ka nii mel ni man lam aarif xew ma nabi yeneen arabtuhu moom laa xam tey bi kulli kitaabin li nabiyina naatu pourtant man bi ma yàlla yeeyee ma janoog yonent bi dafay mel ni tey laa ko doog di xam te pourtant bi ma nekkee ndaw ba keroog may am cinquante nangam ndakate aaya yi may jàng yëpp njol màkk la may teg ndakate xadiis yi may jàng yëpp ndakate lu ma gis ci àdduna bi jëmm ju ma gis njol màkk la may joxoñ wa qanarama xaala nabiyuna wal kutbu jëmm ju ma gis njol màkk la may joxoñ njàngale mu rafet bu ma gis njol màkk la ma jox joxoon waaye ndagate man maa lëndëmoon ba tax mosumaa gis njol màkka bi kulli kitaabin lin a naatahu waxan ma rama xaalo نبيين والكتب محمد لمن جرنا وي وقد مر ربنا ما قال النبي الكتب مبولم يرنتي wax nañ ci njol makka téer yépp wax nañ ci njol makka waaye tey laa doog di xam xaqiqatan kan mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu bi dikraahu fi dunya tudaaw kurubuna mel ni dañ ne ko njol makka moom ngay wax mooy kan mu ni nabiyun bi gayril waxyi laa yatasarrafu safuuxun an il jaani wa qad yatawaqafu yaliinun bi idnillahi xiinan wa yaanifu bashirun nadirun musirun mutaatifu lahu diimatul hatla wala atanu rahbu mu ni nabi yun yonent la boo xam ne laa yatasarrafu du jëf dara dara dara bi gayril waxyi lu dul wax yu dafa ñëw ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daawul séqi jéego lu dul yàlla dane ko séqil daawul bank jéegoom lu dul yàlla dane ko bankal lu mu def rek dafa fekk yàlla ne ko defal wala lu mu bàyyi dafa fekk yàlla ne ko bàyyi yàllaa ko waxal boppam yàlla moo wax ni wa maa yantiqu anil du wax ci bànneexam in huwa illa waxyun yuuxa lu mu wax rek waxyu la moo tax xadis bu wér am am degré alquran ndax alquran moo ko jox moo ko jox li ñu tuddee accréditation boobu moom alquran yàlla moo jox valeur xadis ndax moo wanee lu jóge ci yonent bi ci yàlla la jóge kon lu jóge ci yonent bi ci yàlla la jógee comme alquran ci yàlla la jógee lu jóge ci yonent bi ci yàlla la jógee alquran yàlla moo ko jox valeur boobu moo tax dégg naa ñoo xam ne dañ naan xadis topp ko du nécessité maanaam man na ñàkk alxuraan rek la ñu war a topp mooy li ñi ñu tuddee alxuraan yi yoon man leen ñoom dañoo dof ndax nit quraan yi mënta am moom dong yow taxtalu wala déet moo ne boo ñu toppee bi di ngeen jub kon aaya boobu rek tegtal ne kon topp njol màkka topp xadis topp sunna farata la jullit bu mën a doon nga de moo tax mu ne nabi yu yonent la boo xam ne laa yatasarrafu du jëf bi xayril waxyi ci dégg nga day wax na benn critère mu ni safihun anil jaani aka mën a mënoon a jéggal kuy tooñ aka mënoon a jéggal ku man ku ko tooñ benn waaye fekk na ko mu taxaw mu bañee ko ne ko fay ma naa euh, kii Seydina kii Omar ibnul Xataab daal di nar a mbëkk waa ji ne ko yow kii dafa xanaa dafa dof yonent bi sallallahu daal téye Omar ne ko kaay mu ñëw mu ni ko te nga koo digal rek mu rafet nu muy fayee ko te nga man nga digal ma ma rafet nu may faye kon sax fii fu naan lil jaani waaye nag waqat yeta waqafu yenn saa yi mu taxaw de taxaw moo indi badar taxaw moo indi uxut taxaw moo indi xandak moo indi xaybar moo indi fatxu makkata moo indi sa uh, sawiq moo indi xeex yépp yi ngay dégg aspect bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di taxaw nag ngir noote mboolem koo xam ne da bëgg a yàq yoon wi nee na xi yeta waqafu googu moom mooy indi aspect boobu kon safuuxun ku mënoon a jégaleel anil jaani ci kii tooñ waaye waqat yeta waqafu yenn taay dana taxaw téere bi wax na lii lu lu yu bëree bëri bëri ay yoon wax na ni afaadan nada faydan wa amala saadatan yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam méthodologie bi mu doon jubbante àdduna bi ñaar yi la mooy lan fa ah? fasaasa bi daaka alxalqa liinan wa shiddatan nee na yonent bi paaka ñaari paaka ñaari boor la woon benn boor bi lépp mooy yiw beneen boor bi lépp mooy aw ay moo tax suñu damay wax ni suñu borom ku ci nekk ñun dalaa jox ñaari baat dalaa jox naam jox la walla loolu ay arme la ñu jox waaw ak déet gis nga sëñ Modou bu waaw jotee boo nee déet yàq nga ko bu déet jotee boo nee waaw yàq nga ko moo tax nit dina bëri kersa ba kersa googu dugal ko ci kàmb nit tamit dina dëgër ba dëgër googu dugal ko ci kàmb nooy def équilibre bu waaw jotee neel waaw waaye bu déet jotee nag neel déet Seydina Aysa nee na yonent bi daawul fayu lu jëm ci boppam daawu ko fayu waaye saa yu ñu bëggee xotti war may yàlla mu taxaw moo tax sa foofu naanil jaan yi ku mënoon a jéggal tooñkat la waaye waqat yeta waqafu daana faral di taxaw nag remettre toutes les choses en ordre yalinun bi isnillahi xiinal wa yaanifu yalinun ku nooyoon la waaye nooy gi nag da koo teg bi idnillaahi ci digalu yàlla waaye wa yaanifu daana tar tamit yenn saay basiirun ku doon bégale la tudd àjjana lu bëri suñu seex mi ngi koy wax léegi wa asxaabul yamin ma asxaabul yamin fii sidrin wa talxin wa zillin wa maain wa faakihatin la maqtuatin wa furushin inna ansha'naahunna in fa ja'alnaahunna ab uruban li ashaabil loolu bashir la waaye nadir tamit day ñëw wa ashaabu simaali ma ashaabu simaal fii samuumin wa xamimin wa zillin min yaxmuumin laa baarin wala karim innahum kaanu qabla dalik mutrafin wa kaanu yasaala xinsin azim wa kaanu yaquluna ila axiri loolu du nadir kon basirun ku doon bégale la nadirun ku doon xuppe la musirun ku daan afale la afale xam ngeen luy afale afale mooy li nga bëgg lool ba nga xam ni dara gënalu la ko sa moroom jullit bëgg ko nga jox ko ko daal di toog loolu moom mag ñi daan nañu ko def waaye ndax ñu ngi koy def ñun ab laaj la ba léegi am na ñu koy def nag ba léegi am na ñu koy def de dafa bëreetul rek ndax kas euh, sunnatu minal awwalin wa qaliilun minal aaxirin jooju bàyyiwul dara yeneen tamit ku daan afale la ku daan xool lu mu bëgg la nit ñëw mu jox ko ko daal di toog te sax du fésal ni moom bëgg na ko loolu dal na mag ñi ba tàyyi waaye mutaatifun ku bëri woon ñeewante la lahu diimatul hatla walaatunu rahbu bi mu waxee loolu pare dafay dafay dafay euh, mesa melal tabug yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu àggoon ak ni mu kawe woon muy tabu yonent boo ko doon méngale dafa mel ni waame xam ngeen waame xam ngeen waame mooy taw bu bari lool sama mbokk yi ñu ma koy gën a xam xam nga taw bu bëree dëgg dëgg benn benn sànn la mais dafay jam picc yu bëri déeg yi nii soon da koy remplir jur gi naan picc picc yi di wàcc mbott yi sax dundaat nel benn gàncax gi laxoon nu mu leen def da da koy da koy da koy yëkkatiwaat même climat bi tàngoon sax da koy da koy da koy seddal waa mais option mooy dafay benn affaire lay nekk mais day régler ndoo tous les problèmes en même temps moo tax mu ne lëfu ñeel na ko ak diimatu yonent bi sax ak tabam noonu la meloon bu ñëwee du fi du fi bàyyi jafe-jafe ñëwee rek mboolem jafe-jafe mu fekk da ko da ko fiy jëlee waaye yem na boole na ca wala atanu rax bu am na dënn bu yaatu yonent bi xatul woon am na ñoo xam ni sëñ Modou xëy na mën nga koo bees rek ñu ko nangam mu mer commencé aalu yonent bi melu woon noonu yonent yi dënn bi daa yaatu woon ba tooñ gu ñëw na ci kanamam waaye dana ko muñ ba dara ba ba ba ba du ci lu tax ñuy wax bàyyi bu bu heure matee rek nga wax ma moo tax mu waxaat ni xam nga toujours boo seetloo bayit bu njëkk bi mu la waxoon da lay firi yi ci des yëpp moom lay firi xam nga nee na bi yasrib ba nuurun bi am na leer leer googu nag moom lay firi ci jëm yonent bi ak ay jikko mu wax ni fa asni alayhi bilsaxaai wa bilxayaa wa bilsabri yowma albaasi id kunta bixaqin waqul fiihi wala taxsha baduulun fala jadbun ida baxila alxayaa malaazun fala xawfun ida sammama alabd mu ni fa asni taggal kan ngay tagg alayhi njool mag loo koy taggi bi saxaa yi cig tab yonent bi ku tabe woon la ndax waqad wahaba al alaaqa wastalama al ayna njafeñ mbay daana ko joxe mu sirun mutaatif waaye wal xayaa aku kersa gis nga wa man wa wala man nun da daan joxe te du ñaxe wa safun da daan jéggale te du yedde bëri na ñun ñoo xam ne lu la defal bu ñu la meree rek tooge la ko ci mbedd yi yonent bi daawul def noonu jazakumullahu xayran nee na kon kon euh, wa man nun wala man nun ku daan joxe la ku daan maye la te du ñaxe ma ni bëri na ñoo xam ne tey lu ñu la defal boo génnee ci mbedd bi xam yonent bi da daan joxe waaye daawul ñaxe laa tubtilu sadaqaatikum bil nee na sarax lu mu rëy rëy maye lu mu rëy rëy boo ko waxee rek yàlla na yàq ko yonent bi nag lala loolu dalu ko woon daawul joxe di ñaxe waaye daawul jégale di yedde bu la jégale lay jégal ak la ginnaaw waaye bu la jégal nan la wala gi boo ko defatee dama lay nangam di di la yedd nee na dal ko def de <laughs> lay jégal rek dem day sat kon moom ñaari jikko yi daa ko amoon dafa tabe woon moom jol makk waaye dafa bëri woon kersa dafa tabe woon waaye dafa bari woon kersa yéen dafa bari woon kersa waaye kersa googu nag wax na ko mooy dë am dëgg am kersa dëgg mooy nga nga wattu bopp ak mooy lan sa bopp mboolem cër yi ci nekk nga watt ko ba duñ def lu neexul yàlla gémmiñ bakken nopp ay gët lu mën a doon yonent bi jàngale na ker sa dëgg mooy nga watt ko ba ba du def ndaka sulul noonu ak ak ak li nekk ci bopp wal bat na wa maa xawaa ak itam biir ak li mu li mu lam ila axiri yi kon première ngoob wa bi sabri yowmal baas yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu la neexee nga tagg ko ci muñ bis bu jafee nee na bi balaa ngaa xam dëgg mooy kan nee mu jafe bu jafee ca sàppee ca kanam nga koy gis bëri na ci ñun Mohamed bu neexee ñu ñëw mais bu jafee ñu rek li sama gars yi man de damaa am rendez-vous fee nangam indi benn prétexte xam naa ne sama genre lay wax yenn saa bàyyi saal woo ma <laughs> sëñ bi ñu ngi dem daare rek ma ne ko ah, sëñ bi man de daa nga nangam waaye ñii bàyyi saaliw sëñ Modou mii saa yu jafee nga gis ci kanam saa yu jafee nga gis leen kanam keroog bari ki dem bu gàmmu gi rek da leen di yërëm ndax itam lii ñuy def ni mu neexee noonu la méttee ndax nit a koy def ku ci nekk ñun bu ñu la ko def loo woon tey di nga di nga dina métti ci yow waaye ñoom ñooy taxaw ci kanam liggéey ba mbir mi wàcc du ñu buuse métti kon loolu wa bi sabri yow ma la baasi la xëy na ibnu mayib ak téere bi moo leen ko sol ba ngeen du yeneen bi ci wa bi sabri yow la baasi mu ni wa bi xaqin waqul fiihi wala tax sa mun xel nee na waxal dëgg ci yonent bi yonent bi jë matul matul ñu koy sosal suñu mag ñu baax itam matul ñu leen di sosal yenn saa yi nga gis kenn ci ñun toog ci télé wala mu toog fenn bëgg lu neex ñi topp sëriñam ba tax mu koy sosal lu ne am na wala amul yenn saa yi ñu dem sax ba ciy xasaare keneen te xamuñu ni nit ñu baax ñooñu li ñu def boo ci boo waxee cersi bi rek doy na sëkk aw takk waaye dañuy di ko xëcc di ko xëcc ba mujj nekk leneen loo xam ne kenn xamul lu moo tax mu ni jol màkk boo koy ntagg waxal dëgg te bul ragal mukk ku la dingat ndax li ngay wax kenn mënu ko dindi mu ni rasulullahi basulun yulli waa kon la woon basl mooy joxe mu ni basulun siixatul mubaalaxa la ñu jàng balaax siixatul mubaalaxa yenn saa yi boo ko tuddee ci arab mooy loo xam daal jekki na dayo maanaam maanaam par exemple tey bu fekkoon ku nekk téeméer la war a joxe boo ko joxee mën nañu wax ni kii de joxe na rek yem ci waaye ñu ni téeméer yi nga joxe junni kooku mën nañ ko tuddee basoolun ci contexte bi maanaam dafay joxe lu bëree bëree bëree bëree bëri moo tax mu ni falaa jat bun bekkoor du am kañ ida baxilal xayaa su taw demee ba téye boppam dootuma taw bekkoor lu ko fi jël du taw nee na ak joxem tax na buñ demee ba taw amatul bekkoor du am lu tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy dox diggante nit ñi bekkoor ci lan ak tabam xam amul sëñ Modou c'est très facile à comprendre man sa man Mamadou Seck mii damaa am problème mu alal yëruma dara liggéey bi bëgg a dee yoruma dara nawet wàcc samay tool gàntu waaye samay mbokk yépp seen tool nag bu ñu am fukki am juróom benn bërigo ak kaaru bërigo yàlla dañu leen jël leen un dixième ngeen jox ko Mamadou Seck ma ne loolu ci nekkul ci tabum njàng njàngalam yonent bi di azak kon kon falaa fa bazul falaa jatbun ida baxilal xayaa waaye malaasun wéeru wàll la woon ida falaa xawfun ragal amatul isa am abdu duñ demee ba jaas yi tëx jaas yi tax moo doon mooy ñu dem a dem ba ñuy xeex xeexeetuñ sago ku ci nekk di falaxe looro mu falax nee na boo dàqatoo ci sidna muhammad rek dinga am jàmm kon téere bi noonu la toppee yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax moom bu taxawee ñu la madiox ni ah, madiox na bi azka taabudi ki déggul danaan waaw ana julli ana anat azaka ah alquran fan la waxee ni loolu te xamul ni message codé la dafa bëgg a wax rek ni yonent bi comme mooy ki nga xam ne ku ko topp jub kon wax ay jikkoom moo gën ci lépp lu ñuy def hada wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala ba ñu ngi jégalu bu baax lépp lu ci dëng rek ñu ngi koy jégalu asalaamaaleykum سقائي وبالحياة وبصبر يوم الماء إن كنت مسنيا بحق وقل فيه ولا تسم الخيا بذل فلا جدب إذا باقي الحياة ملاذ فلا خوف إذا تمم العدو الله صل على محمد سيد الوزراء وزفير عليه في المعزل أثني عليه به سقاي وبالحياة فأثني عليه بالسقاء وبالحياة وبالصبر يوم الماء كنت مثنيا بحق وقل فيه ولا تهزم الخيام بذل فلا جد إذا باقي الحياة ملاذ فلا خوف إذا سمم العدو Kabir Sëriñ Basara wasal fi Mustafa fi Basara nga xam ne benn la ci bawkaasi caraba ji ñu koy sant waaye ñoo sama soxla bi nga xam ne laa ko bëgg sama bopp moom laa ko bëgg naa ko ngir mën a kaanam taxawal ak yaram waaye li mu bëgg si Ibrahima Seck ñu koy nekk ci daayira bi jaajëfal bu baax waaye jaajëfal sëñ Mor Fall Sarr sëñ Mor Fall lii de boo na ko préparé tey incha allah dëgg ànd ci say góor ak say mbaa yi bu soobee yàlla day ñu taxaw wala ñu war a ñu ñu defal day lii mooy seen mission ñoom téere moo am ndax bi rek mooy seen mission boo xoolee day dafa baati ne ci dama mën a wax mooy ñi nga prix mag yi nga xamul ci naka mu maamu rek naka mu maamu taw ci suñu jéem yàlla kër yooyu ñëpp seeni sëf dañuy bokk dayoo war nañ leen maam jox ko baax ay sëñ maam ay sëñ maam sëñ ay sëñ ñi nga xam ne ñoo yor jiwaay bàyyi mu sëñ maam daam jàmm ay ko leen ñoo bàyyi waaw daay yéene ba ci maam Boubacar Cissé mu ne borom yaaram ñu ngi ñu sëñ ñu def rëy jóge ba Dakar daayira bi ñu ngi sant bu baax waaye nag sant ñi nga xamante ne bii ñooy ay wàllu gis nañu teeru bii ñu ko teew waaye gis nañu dalal bii ñu leen dalal waaye moom Serigne li ci gën a yéeme woon lu ko kilifa nekk ñu bëri ba ca moom nuyu ko saafoon présentation bu leer nañ war na ni lii ngeen ñu indi kër bëgg na muy lu rafet lu dal xel waaye lu sedd xol tabarakallah ñu ngi koy jaajëfal bu baax daayira bi seen mission mooy téere Mamoul Ndack gis nga leen nii ci seen jëmm muy jëmm yu ndaw waaye yéene ji mu mën boo ñëwee guddi gàmmu nga xam ni moom la Seexu Canaba woote benn historien wax na ko nee na waroon naa woote kenn bu ñu jógee mën naa woote yeneen bis waaye guddi yeneen moom la tànn di ko màggal di benn bis ci Thiénaba boo xam ñëpp ko bokk daayira bii ñu gis nii ñoom ñooy dem ba buntu jumaa bi ñu tàmbali jéem dinañ jàng fukki buntu ak juróom seen professeur Pape Mor day ñëw awaleen ñu toog ginnaawam bu jàngee juróom na ci buntu ñu bàyyi ba suba ñu ñëwee jàngaat lu mat ñeenti buntu bàyyi fa ñett sëriñ bi ñooy ànd daay rek ñëw seen mission yëpp téere bii rek la moo tax ñoom ñoo ko defaraat nii ba mu beesaat ah rafet bu ko war a am ci taalibe yi am ko loolu mooy seen mission defar nañ sax dafa defar ay kala yoo xam ne pour mu xëy la yaa ngi ko jàngee mu tey nga xam ne ñoom ñu koy déglu wala ba koo taxawaat mën ngaa ànd ak ñoom ba ñaanal ko diine toog day def lii ñu def nag bëriwuñ ko kenn képp ku jàpp jàpp ci canaba wala di nga laale sa caalale laale ku ci canaba incha allah fas yéene nañu fekk fa nga ne may la tey def nañ ko ci xalifa yi dañ ko ci muxallam waaye képp ku àndoon ak Muhammad rek dañ ko def ci incha allah loolu mooy seen mission dañ leen canaba kañoo sëriñ Abdou Aziz Thiabe dañu leen moom sa bis bi ñuy defal ci koor gi toujours yéen a ñëw fanaan ko ba asamante ñu ngi koy egg bis dem nañ jëndee dem nañ fu ne bii yoon nag incha allah bu dee junj gi dina yéen ba mu wut yéen mu waxtaan kon xam nga ni bàyyi wu ñu fenn bu ko defee Modou Fall boo xamante ne bis bi bu la neexee daa yéen a ngi ne may na la utilisation yàq ko mu ne sa gàmmu waat. ànd kër gi nga mu gis gis suñu tànk bii ci suñu kër maam bii defoon na bii sàkku ci ñaan ndox bii dëkk bi yàlla booy ñëw boo duggee dëkk bi say am na daw li nga xam ne dëkk bi dëkk alxuraan la waaye dëkk bu leer soo amee tuuti yëgee rek ñu koy wax ndax man ñu baax ñoo gis tabarakal dañoo wax ne sabaru bu foo ko sëf dina am lu fa des yaakaar naa ne ñii dañu daal ñii ñoo yore subhaanallah ba nga xam ne moom la ñu war a nekk sa réew ñu ngi jaajëfal bu baax di kontaan ci yéen di jaajëfal bu baax di ko TV ndax ñun suñu partenaire la daa bokk ci daay bi ambassade directeur ñu koy sant bu baax bu dul woon lii sax ngeen xam ne bu dul baax teel bokk fu ñu mën di jëm ci réew mi day ànd ak ñun daa di ma leen dara fu ngeen jëm rek ca ko TV jël ko indi ko wan wàccal lii ngeen di gis fu ñuy vingt quatre heures ak loolu yëpp dañ ko seetaan waaye wàccal ñu ngi jaajëfal sañ Ndiaga Seck bi bu baax nga xam ni moom yàlla dogal euh, kenn la ci sëriñ Cheikh Amadou Tubaarkalla ñu ngi koy jaajëfal bu baax maanaam sëriñ Cheikh Amadou waaye mu xàmbamu sëriñ Cheikh Amadou ñu ngi koy jaajëfal fu ñu jëm rek maa ngi ñu jaajëfalaat bu baax waa daayira bi waaye sama soppe bi man passé kontaan nañ yàlla yàlla defal ak jàmm ak yeneen bi bëgg nañ koo def am nañ ci ndigal Ngor Fall Sarr yow la yàlla dogal ñu amee ndigal ci nañ njëkk a ñëw bu fekkoon ne leer yi commencé naa génn dañ lay jox leer bi ne la leer say ndaw say waaj waaye tey jii tey jii lañ am digal incha allah bis boobu bisu mouvement yëpp lañ ko tuddee dañoo bëggoon fépp fu daayira bi dem bu bis boobaa incha allah nga ànd ak délégation bu am solo ñëw fekk ñu pay ci Thiénaba muy journée Ibnoul Mouhin ñëpp ku jàng Ibnoul Mouhin am nga ca wàll waaye bépp taalibe bi waaye képp doyee dana ko dana ko ca wàll ndax dañu ko def journée boo xam ne dañ koy yendoo ñëpp ñëw teew journée boobu am na ci diggante ci sëriñ te jàpp nañ ni bu ñu waree le 5 avril 2025 dinañ ko bëgg a jàpp incha allah ndax maam Bakar loolu ñoom sàkk nañ sa teewaay waaye maam sëriñ mu baax ma de sàkk nañ sa teewaay ak délégation bu am solo ñu ngi leen di jaajëfal bu baax xam naa ni kàddu yi foofu lañ koy yem yaakaar naa ni kàddu yi cinquante neuf بطل فلا جسبر إذا بغل جسبر فلا حوف إذا تمم العسبر أرو على ذكر أرو على ذكر نبي واتدي وارجو به في العصر تكرم موردي لأن يد المختار ولله أتدي سريت إلى مكه النبي محمد حنانا لذان بالمحبة ينبضا شرعيت لا ينفي يفري بذاته تحدث في أحلاقه وصفاته على الرحم من أطاده وصناته صبت على الإطناب في معجزاته أباعد عنها ما استطعت وأبعد جونان لا جوال غي باب الإرسال ay médaay yeddi yu doy mam ñàkkur saar yow yaa nu doy sa werd wi moo mat a ngoy ay yooni yoon la xuus di dem ba téere ji fa waalo am ay médaay ak ay ndamam yooyu raw na sax wurusu ngalaw nun ala nuuri la yoroon lay taaye ko xam-xam bu wér sariatoo xaqiqatoog sellal jëfam ngir xamam maam yaay ki taal fii nuuru diin yemoo ca sellal ngañ muslimin daqal ñu iblisu lain fi zikri man lawul izam lawlaa kay waay kon ñu réer tan nuuru dul zikran kasiir way mbir du leer borom bu leeruk nañ ña mbaamu dàq lem kay ndek jolloor gi yaanu doy sa wér di wii moo mata ngoy bàyyi baakar yaa doon nu ci seyku suyuuxi am nga ndam comme jubtal xifaare te gëstu woo di wër ca buur ba ta jaaxle woo baayu baakar kam kam le woo yaaquutatul farida ak përëm salli rabbi wa salli ala nabi mukarrami wa alihi mufahami bay muftu wal ànd ak ngërëm yaa وسودان بادر إلى قطبنا مكتوم ملجئنا بئر الفيوض وأسرار وعرفان واعرف على قطبي ولا سمن به ما كوكوي واعرف على حبه ولا سمن به تفز وتربح وكن مستسلم الثاني المقدم في الهد مجتنب مناهي الصيد في سر وإعلان معاذ سنة المحتار منطبع نجر سريعة من علاج الشيطان وبابه لمريد الوصف منفتح حاث وبر من أكوان ثيان دنين قلت والجنة بواهن أتى سحر جليل في يبه ولد النبيل ذاك الربيع بزارة ولدرة فيه النزول يوم الصناع في الذئب من الفضيل والروح نادى صياطا أن خلى ليلكم الكثير فاستيقظوا بتعسر وتزين خدم الوفيل كن فتح الجنان من أجله كان جنت به ما مثله طيف النظير نلنا الهنا bu baax. nee di nuyu xalifatul am suñu ëttum maam bàyyi seen i Abdou Aziz Sarr borom dëkk bi borom tund wi borom jumaa ji borom penc ñu ngi koy ziyaara bu baax di ko nuyu di ñaan ci yàlla yal na yàlla guddal fanam wéral ko ci biir ak ci biti mboolem ak ay rakam yëpp Serigne Abdoulaye sar mi nga xam ni moo aye wat ëtt bii ci ndigali ay magam Baye Alpha ngi ci biir Serigne Madické ngi ci biir Baye Khalifa Sarr mi xalifa bi mi ngi ci biir sëriñ Alaaji Sarr mi ngi ci biir Baye sëriñ toogal ko fi ak ñi ko sekkal ñëpp fa tabaarakallaahu ci biir nuyoo bi ñu ngi nuyu sëriñ Mouhamad Seck mooy deretu Amari Ndaak fii ci jotaay bi kon mooy kilifa ak jotaay bi ñu ngi koy tatagal bu baax di la jox sa wàccuwaay ci biir ak ci biti sa yëngu-yëngu ci diine ji ci sa yëngu-yëngu ci tariixa bi umbul kenn ni ngay bayle sa maam lii moo ci gën a ndaw ñu ngi lay jox wàccuwaayu xadara bi ñu ngi lay jox wàccuwaayu seexu Thiénaba lépp lu ñu fi leeral ci guddi yonent bi yàlla nay leer dëbb ci ñëpp ci barke bi kontaan nañ ci bu baax bëgg nañ ci yow bu baax bi ngay wax ñëpp xam nañ li ngay wax xool nga ko jële yont yàlla Muhammad lépp loo koy wax te yëgoo ko bàyyi loolu ñu ngi lay ziyaara bu baax di nuyu ak ci biti di nuyu Serigne Ndiaga muqaddam ñu ngi lay ziyaara bu baax suñu soppe nga démb tey doore ñëw ñu ngi ziyaara bu baax ci biir ak ci biti di nuyu Serigne Alfahim Dia koo sopp rek sopp na la koo sopp sopp na la kàddu yi rafet na jëf ji rëy na te ni nga waxe noonu nga ko gëme yàlla na liggéey bi rafet sëriñ bi dañ fee am suñu mbokki bopp jóge ba njama ñëpp ñëw nañ am suñu mbokk mbokki bopp jóge nangal ma ñëpp ñëw nañu ak tund wi ñëpp teew nañu ñu tënk rek sëriñ seex wayi neex na lool ni nga gunge xale yi kontaan nañ ci ci biir ak ci biti di nuyu sëriñ njàmbe Sarr di doomu xalifa bi def délégation bu mag jóge fee seen kër maam ñëw seen kër maam ànd ak sëriñ Duudu di ku baax di doom baay Serigne Sarr di nuyu Serigne Moustapha Seexu Tidiane ñu ngi koy ziara bu baax sëriñ Baara nekk seen kilifa ñoom ñëpp ñoo ngi koy ziara bu baax ànd yépp rakk yëpp ñu limee rek ju mën naa dugg waaye li ma mën a lim ci njabootu kër gi su ma ci jekkee baay Serigne rek taxawaay bi ci dëggu gi ci resa ci resemblawaat njaboot gi jël ko teg ko ci loxo Seydina Ibrahima seen coordonnateur seen kilifa di lépp ci liggéey bi wàccee ko Serigne Babacar mu yaa di ngeen jaañ ak ñi ko seqal ñëpp Baye xalifa Sarr mu ngi ci biir muy suñu suñu baay papa di ku baax di ku dal di ku teey ànd ak seen rakki bopp Serigne Babacar Sarr mu Serigne Ngeen Demba Sarr porte kër gi mi ngi nii ànd ak maamam Serigne Ibrahima Sarr mi ngi ni toog ànd ak Baye Khalifa kim tuppe Baye Khalifa di ku baax ñoom ñëpp ñëw nañ Serigne Alpha ak ñi ko sekkal ñépp ci biir ak ci biti Baye Sall jërëjëf Baye Sall Ibnul Mahayib jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf lii nga ñu indi bég nañ lool kër gi day kërug maqaama di kërug wilaaya di kërug tëbb ñax ñi fi boofoon yàlla da na a nanguloon muy baay Bakar Sarr baay Serigne Oustaz Ibrahima Sarr sëñ Pape Sarr ak Serigne Talla mi ñuy jooy te noppeeguñu fii kërug maqaama la fii kërug fajukaayu aajo la fii képp ku fi indi aajo kër gi gàccaam la aajoom bañoo faju gàtt kër gi la ku fi dugg rek gëm nañ aadi faju na maam Amadou Ndanga amuñu fayam maam ñàkkul Sarr amuñu fayam maam Serigne Ngay amuñu fayem ndax lu waral lool sang yu tedd yii ku leen yërëb bañ leer nañ ci jamono ñi pàkk pàkk bii indil ñu ñaar alquranul karim ibnul mahib nee na mag ñi ci loolu lañ tëb ko xam ma ma Talla góor gu mag Serigne Ibrahima Seck dañoo tëbb ñooña ci alquran tëbb leen ci leeru yonent bi ñëpp xam nañ ni yonent bi moo fi ne général Thiénaba Pape Mor Gueye mi jàng Ibnul Mahayib الأنبياء والرواء أنبرياء محمد هيا جاد فكري وبال يا محمد يا حبيبي يا محمد يا محمد كنت بيبي أجرني من لخبي ممدو إن عزار السقال والباري تكلم في السناء قد تكمل وازدحائي قد تعمى الممد بالماعز والجمال مجت وقوت بزيها ينام ana ku fi gënu bëgg Seexu Tijaan Seexu Tijaan Seexu yaa am yow yaa am gëneel la ki may yaaram bi yaa jaraway yow Seexu Tijaan yow fi gën a bëgg Mawlaaya Seexu Tijaan Seexu Tijaan Seexu Tijaan si bi yaa jara way sa wird wee mata mooy sa njëli neex na te doy saw ñay du xaaraani Seexuna Tijaani hal min murabbin hawa kamala ka misli Seex Seydi Ahmad Tijaani lala kam taalihin fi samaa ليس كالسمس المثالا كل المريدين دون ذويا لزين أكبر خيالا فكان خنبا وكان خوزا وسار ختما على الرجال ndax ñoom ñoo fi jóge waat di dellu te nanu ñëwe ñoom ñoo ko xam loolu moo tax nuyoo bi da ma koy jéggal ñu wax ci lu tuuti ne bis bii nii mu ame nii rekk la war a ame lu tax Baye Talla Sarr mi meññ Serigne Mamadou Fall Sarr mi ñu may bis bii bay taala ba desee na tuñ ko dara ba muy dund ak bi mu génnee àdduna bay taala léppam canaba la kon bu demee ginnaawam weer wi mu demee woon del siwaat bisu gàmm la dem te ñu ngi ci gàmm ba tey bis bi bisu Baay Taala ñi jiite daayira bi ñépp nag sant nañ leen ci sunu turu kilifa kilifa yi ka ca jiitu mooy Baay Xalifa Saar ma ca canab rakkam di sëriñ Alpha Mamadou ci turam lañuy ñuy sant njaboot gi ci turu sëriñ Madické mi nga xamante ni mooy kilifa kër gi ci mageel ci leen di sant waaye sëriñ Madické nekku fi ak njabootam ñoo fi nekk ay rakkam ñoo fi ne rakkam yi fi nekk nag kenn jiitu ci sëriñ Ablaye Sarr mi nga xam ni bi ngeen agsee yóbbu nañ leen ma ca moom mu fàttali leen lu gàtt-gàtt diggante Thiénaba ak Mérina ci kër Baye Bakar ba pare yëkkati teraanga ju bari ni leen maa leen ko jox ngeen dollee ko seen gasoil sëñ Ablaay moom mi ngi leen sant di leen gërëm nee na ba ma fa jógee ma yóbbu ci sëriñ Alaaji Sarr mi nga xam ni kilifa la ci sëriñ Moodu mi moom itam sant gërëm ñaan ñi ñooy njabootu kër gi waaye sëriñ Muhammad mi nga xam ni li ngeen doon way moo ko firi firi boo xam ni kenn ku ca nekk ci ñun jëlaat na aw bind ci moom ndax ni mu ko doon firee mën na ko nam ko waxe ñun ñëpp xam nañ ni lii muy wax xam na ko sëriñ Mamadou mii nag ni ko sëriñ Bakar waxe ñun ñëpp njabootu seexu Thiénaba lañ ndax njabootu ruux lañ ndabootu deret lañ waaye moom mii tey toogaayam toogaayu seexu canaba ndax lu tax wuy juram Baye Mouhamadou Seck Roqaya Serigne Mouhamadou Seck Roqaya mi nga xam ni moo ko jur Baye Ousseynou Khoudia ko jur Baye Ousseynou Khoudia Mama Dikke moom la wax tafsir ma Dikke canaba seen ki nga xam ni ki yoroon li aju ci tafsir yoroon ci xam-xam xam-xam ku ko bëgg a tëral lu nekk ci doon seexu Thiénaba ci maamam nga daan ñëw maamam mook maam Ibra Penda ak maam Mamar Talla góor gu mag ñoo bokk maam Ahmadou Ndak Seck maam Amari Ndak ñetti doom yu góor la amoon kenn ka ci la Mamadou mii soq nañ ko bàyyi noonu insha allah ñaanu dem dina nungu tey jii suba nag ñépp teg seen bët insha allah Baye Cheikh Fall ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm di ñaanal yàlla ànd ab dem moo indi lii man soo duggee suñu biir suñu xal dee gën a dal ndax Baye Modou Fall mi nga xam ni moo la meññ ku ko xam xam baay taala xaar ku ko xam xam ku ko xam xam mboolem ku jaar ci seexu canaba tey jii nag ñoom ñëpp yaa fi nekkal njaboot gi nag daa gën a yaatu rek waaye kenn par kenn ba ci biiti ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ndax njabootu baay taala maam ñàkkul jur nga jóge ci sët nga jóge ci sët baa nga jóge ci doom njabootu Baay Taala nga ndax ñii toog fi sëñ Moussa Sarr sëñ Baara Sarr ak ñi ko bokkal sëñ Moustapha Sarr ñoom ñëpp am na lu ñu seq ak Baay Taala kon ci biir njaboot gi lañ Baay Góora Mbeng nag mook Baay Taala Sarr ñoo ñu yar ca Dakar maa ngi koy wax tey jii 1984 la njëkk a dugg Dakar bañ fa nekkee atelier Baye Gora lañ daan seete sa baay 1984 ak léegi ku ko doon seet at yu bari la nee bu ñu masaana na mu Baye Taala atelier Baye Gora la dem ba atelier Baye Taala Ñas léeg-léeg Taala Ñas bu ñëwee di seet Baye Taala mu ni naar yi jàpp nañ ko booba mu ne suñu bàyyi dañ koy seete ba naat di ko jàpp booba lañuy nax Baye Tall a ngi ci biir ngir wan la ni meloon ci njabootu Baye Tall 84 ba 94 maa ngi Dakar sant nañ ñëpp gërëm nañu ñëpp di leen jéggalu Baye Sall mii la ñun bu ñu jugee fii fii ne ak suñu oto ñun ñëpp foofu lañ jëm wàcc na lu bari moom itam li may wax ci ñi moom rek laa koy waxal ndax sama doomu turandoo la walbatiku ñu jaar fu bari Serigne Baye Sall nee na balaa ñoo ñaan. maa ngi sàkku ñu ñaanal Baye Talla Sarr. ak suñu Baye su Baye Gora Mbeng. nee na nga joxe dog bi ñëpp ñaanal leen. waa léegi Serigne borom téere bi wàcc naa. góor gi mooy borom téere bi wàcc naay. téere bi wàcc naay. def nañ ko na ko mag ñi daan def yal na ko yàlla dugal àjjana dëkkal ko. nee na moo lay bëgg a décorer. ak baay Papa Kane. ak Baye Papa Kane. ñoom ñaar. ñoom ñaar. ku xam Baye Talla Sarr. ku xam Baye Talla Sarr. xam nga leen. xam nga leen. moo waral. moo waral Serigne Mamadou. Serigne Mamadou. defar loo xam ne. defar loo xam ne. ñoom lañ ko bëgg a ñoom lañ ko bëgg a séddale. ngir yàlla ak kóllëre. ngir yàlla ak kóllëre. asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mamadou Seck nag. Serigne Mamadou Seck nag. moo koy jox si Baye Sall. moo koy jox Serigne baay saal Baye Sall jugal اللهم يا ربي صلى على محمد كنن مكارم اهلا وتلك المكارم واي كسب يونتي ديفل ني ماغال كو yaa rasuulallaah tayamani wan wi tabaruka bismi yonent bi jar naa way wala tax du fi say in tari xanda rasmi faqad qasama al mawla loo xayra qasmi kenn denen faqad qasama al mawla اسمه يرتب ترخاء إلى سفق تباخ بجسمي فقد أزرق الأملاء كها وأجلتي كن ينبغ محمد المصطفى كن فيا ربنا في الأرض والسماء أمنا على تصديق قنا بسفائه فإنا وجه الأسواخ يحيى بدائه يزق علينا سدون اللقاء إذا الدين لم يكمل فلا كانت دنيا سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله يتعلم اللغة يب سيدنا محمد سكرة نعم Senhor Mozart, nhana. Nhana. Nhana. Nhana. Nhana. Nhana. Nhana. Nhana. Nhana.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 lu ñu am yàlla yem yàlla lu ñàkk tam yàlla yem yàlla yàlla yàlla musal musal musiba ak balaa gàtt fan dégg ñaaw yaakaar yi tas yàlla nañ ci yàlla musal xaaja yi ñàkk faj yàlla nañ ci yàlla musal seen i njaboot suñu njaboot yàlla wattu sàmm aartu jubal suñu way xaajo suñu way tawat yàlla yàlla saafara leen suñu way dawal yàlla yàlla yërëm leen jéggal leen dugal leen àjjana yàlla nañ fekkante ñoom aljana allah ko bërëgat seedi bu judi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne andi nga fi xaajo ak xaajo bu man doon yal na yàlla ruse ko jataay bi ak mag ñi nga xam ne ñoom ñoo sos jataay bi barkat Seydi Ujjul sallallahu alayhi wa sallam يعمل هذا الفرح جميع الصبر الحبيب قلم يقص بجلد العلمية الستر ويعظم العافية أحزن تجاوز هذا المغفرة يا باسل برحمتك يا سامي كل نجوى يا من تحيي كل شك كل مصطفى ويا عظم المن ويا مقل أرثلات ويا مبتدعا بنعم قبل السقاخة قبل السقاخة يا رب يا سيد ويا مولى يا غاز رحمة الصلاة والسلام قد بدأ ربي أصحاب النار